loolu juma bi baaxul juma ma dem ñëpp ñu ko dem ma di la ñu daa rafet te ma fukk la ah dañ ci taw bi rek ndax wax dëgg
Bismillahirrahmanirrahim. أخذوا بثلاث سلام يرزق لهم الرحمن أخذوا بثلاث مقدورا ولكن جاءوا سيدنا سيدنا ولكن قرأتوا يس يفجون ربنا في بلدنا وأخذوا بثلاث ويوجدون صفايا يلعن قلوبهم بور الدجل كما كان كما نكبوا وما وقفوا ak kër yu mag ñoom ñoom dañuy mën a bëgg nga xam ne baax na leen ñoom ñu mën nañu naan ci yaara yaara yi rafetlu yi ñu mën ñu mën di ko ci ñoom te mooy ñu mën ci yaara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom moo jàlle yaara ñu nga xam ne bindu dañoo ci cosaan bindu mooy ci mën nga bindu mën nga jàng bindu yaa ngi koy defal saamaa rek mu ngi ñoo xam dara te yàlla ay nit ñi ci ñoom yow yàlla moom sa laa yoo xam ne ñu ngi ci ñu jël jàkkaar yi ñu ñëpp yéen ñoo dama mu jàng xam ne ci ñoom aaya bi yow xoraan te yéen ci ñoom nag di jàng xoraan ci yàlla ñu doon waar wuyu ba ci ñun sama laa ba doon ci bokkaale yàlla lu doon laaral soppal yàlla bokkaale lu yoxam ne moom tamit xamante na ci balaa balaa wala ci kuma ba atene ci jiitam mbaa wala ci kuma ba ak sunna wala ci kaano naka na ko ñu ñoom yàlla ñu xamu ñu ko ci gënu ñu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci balaa ci ñu ñu ñu ñu waaye dañu ñu boobu ñoom yàlla ci ñoom bu ma fekk rek ma ko rek waaye waaw moom ñu jiitu moom la ñoo fi gën a rëb rek rek yow di ci doon di baax rek jërëjëf yàlla di jaam rek waaw xam nga ñaar ñoom ak na ko rek ñoom dama yàqoo ba ci ñoom ci ñoom am na itam ñeneen ñu ñu ci ci ñoom waaye dañu ci rek ñoo xam ne ñoom lañ bokk ko jënd seen jamono la Abubakar na muy am doole ñun ñun doon parce que fan maanaam saa la ci leen gën a toog te moom rek dañu ñu ci jotaay la yéen a ngi ci seen loxoom ci fan maanaam la ñu ko xool ci leen loolu ak dëgg la ci ñu ñëw yéen a ngi ci jiwoon te muy doom sallallahu alayhi wa sallam ñu dafa jiwoon ci ñu ngi ay xar yoo xam ne ñun dañuy bëri bu mu soxalee ci ñoom ñoom ñu ko xar yoo xam ne amul bàyyiwoon di leen wëdd bu ne baax a koy suñu diggante bi baax a koy ñu ko xar ñu wëdd mooy yaram yi danaa bëri ci wëdd xar yoo xam mooy ñu ñu ñu ñu ne bu ne ko noonu la ko jiitu turee. moo tax yàlla ñu ne ñu ngi ci yaram yi ñu ko gën ci saa yaram yi jubal na leen laaral na leen xamal na leen am na ñoom ñu ngi ci suufam ñoo xam ne fii dañuy nekk ci ma xaaral ko ci suuf seen jamono wala mu xaaral ñu mu xaaral ñu nekk wala mu xaaral ñu xaaral ñu xaaral ñu nekk moom. bu fekkee ne su fekkoon ñu ngi xaaral ci beneen bi wala daara yi ñoom lañ ko def rek alhamdulilah yaa ngi ko def xam ne daara moom ñu boo ñu ci ñoom ñu ko ñu ko ñu ko yéen ñu yàlla ñu ci loxo daal daal ñu ci gën a ko koy jox yàlla wax nga dara. xaalis bi nga xam ne masala ñu ci ne raw ñaa ñoo xam ne la toog def na leen tawreet a jëfe tawreet wala ñoo xam ne la topp jëfe ñu ko amaa yow ñi nga xam ne jàngoon nañ tawreet tawreet wax leen ne ñu ci yàlla Muhammad dana ñëw yéen ci ñëw ba noppi ñu gis mara yi li tawreet waxoon ci moom yëpp ne ci moom ba noppi ñu bañ ko gëm ci bëgg àddina dama fa ni naari naka meloon mbaam lañ yaa ngi ne dama mën a faral di téere de yéen seen xam-xam ba jëkkeen demee dëgg ngeen ko mu ngi mel ni mbaam mu tëgg téere rek de ndi ko jëriñoo dara dina mbaam te tudd leneen ndaxte mbaam a xees ci waaw nawle ñoom dafa yàlla ci li ñu ëllëg wal xayla wal bixaala wal xamira waaw ñoom ñett nañ leen tuddee mbaam xees parce que gën baax la baax laa gën mbaam mbaam li gën a xees nag ñoom mbaam la leen yàlla ñu mbaam li ko itam mbaam a gën a xew sëf bi nga xam ne ni kuy war war baax laa ko gënal ku warul waaw war a sax a ko gënal ku warul sax war baax la soo amul kenn ci ñoom la sax war mbaam mbaam moom waaw bon sëf rek moo ko sëf moo ko sëf moo tax mbaam sëf sax la ko war a di wax waaw yow nag ñu ne mel ni mbaam mu sëfi téere di ko bon na masal xaw mi melaw ñu ñu alif la ñaan ko sama ñu da la jaa alquran yaa de la la la di jël ci mu alqawm ñu daal ñu ne do ya di de ñu waxa ya ya li sunu haado e ñen ñu yahut nañ insaan dum dam na yeen annakum naka yeen awliya wa ay wali yeen la ñu ñeel yàlla mu do na fi wali ci ta tam na mu de ben al mawta de in kuntum dum na ci ñen fa ta ñu de gal yow dañ na way ñun ñoy xarit yàlla dañoy doom yàlla ñun ibrahima ci maam xarit yàlla la faseeroo ci maam doon yàlla la waaye ñun doon yàlla ngeen koy xaritam duñ dem safara mukk yonent ne leen loolu dëgg la laaj leen dee léegi ci xam ne yow la aljanna yi nekkee léegi ci àdduna gën a xarit yi léegi leen dee yéen yow wala ya tam noonu léegi ci ñu ko abadan dab tab dina xaddamat jëlee jiital na ko ay dina yàq seen wala ya la alim aja xam na bi taali ngeen gën a yedd ñe de yeneen ci ñu gisaat yeneen tubaab yeneen ci ñu dee mukk ñun yahut ñu yahut bëggee sànno yeneen bi kenn waroon naa taxaw benn bés rek ne ko man mi def naa dee waaye kenn waxu ko li ndax wóor na leen ak dëggoo ku ko ci waxoon rek foofa ngay soto ci say waaw say lor daal bi ñu daal akira te safara ba jël itam moo tax ni benn yowat nit da wax ne ñu def naa dee wala yàlla alim naa ci xam na di saa ni ñu ne jaway yeddi rek bul waxal ñoom moo tax naka dee la si kaaka tax yéen da ngeen bay ñu ci moom noonu tey ne na sama mu laa ko jumaa ji dajale moom yéen waaye dee na moom ngeen ko daw daw du ngeen raw ndax waaw moom ñu leen di topp dëgg topp mu ci jóg ma turoon dana topp def dara ñu daal ñu xëy bi dëgg leen ci aji xamal fadi wasa ci ko teew tey na bu ko mën taw leen dina xam ci na ngeen nekkoon tamam ngeen jëf yaa yàlla sama amono yéen dañu jëmal alquran ila no yéen dem xawaye na li salaatu ci julli ñu ngi jumaa ci def waa jumaa façon dox leen ila fikrillah jëm ci julli yàlla ga wasoro bañu leen ak bàyyi ak jaay de boo xam ne defet juma jot na bañ nobbe waaw nobbe ga jëkk bi waaw njaay jënd xaraam na de na yëpp ba lépp luñ doon def te dem te juma jëde juma lu ci hikmatu mooy yàlla dund na mbindeef lépp ci juróom benn fan dalee ci bésab dibéer dibéer la yàlla sañ ci àddina bind asamaan ak suuf ak garab yi moo tax juma ci bésab sañ ci ba tey ku sañ ci la kaamu jëkk a sañ ci bésab dibéer xal ci nañu bindee jant benn weer weer bi di digal leen ñuy dox nañ ko fa tukki talaata yàlla bind jiri kër yi ak bàyyi ne waaw njaaxale yi daganal suur seen damm muy bésab tuur deret nampataloog xaraf taamu nañ ko ci doy wés àllarba mu jublu jéem gi daganal seen naan muy bésab naan garab alxames bi bind aljanna safara tamam la aljanna ragal na safara muy bésab ñaan yàlla ajjuma mu bind aadama ca saasu mu gisa mu bind xawaa jabaram may ko ko muy bésab sëy juróom benni bés yooyu ci la yàlla bind lépp lu mu bind aadama nag moo ci mujj yëf yi sotti moo tax bésab ajjuma ñu def ko muy bésab feet neen bind lépp dañ ko waxee yow ñoom ñu bañ waaw ñu wax ko nasaraan ñoom ñu bañ yonente ne yéen ñeen a mujj ba noppi te yéen a jëkk bés bi nga xam ne yàlla digle woon na ko yow bañ nasaara bañ yéen yàlla jubal na leen yéen jàpp ci de tey la suñu des di àjjuma ëllëg aset ñeel yow gannaaw ëllëg juma waaw ñeel nasaraa yi de waaw moo tax ba bésab àjjuma di bésab feet waaw ñeel waaw julli ñi rek di ko yàlla defee muy bésab feet nag feet ci lay doomu aadama bu ñuy feetu bëccëg lañ koy def moo tax ñu def julli juma ci digg bëccëg te feet laa budda ñu def ci ay discours xutba moo tax de ñu waral ci julli juma xutba julli tisbaar ñu leen ci rakkale leen doon waaye wala xutba bi ci la bokk ñaari xutba yi ñooy ñaari rakka yi ca def ñaari xutba yi taxaw nañ taxawaayam ñaari rakka yi ca def moo tax ñu diggal julli ñaari rakka ñu leen ci la waral doon di nga xamee nag ne bés baay bi juróom-ñaari bés lañ yonent ne ñaar dina juróom-ñaari fan la dala ci asar asar hen ci àjjuma ba nga xam ne bés bu ne waral nañ la ci juróomi julli su ajjuma jotee matal nga li la waral ci julli waaw ci bés bu ay bi moo tax ba ñu may la feet ngay julli juma muy feet yi julli yi ma waroon ci bés bu ay bi matal naa ko ni ki korite nekkee feet ngir koor gi la waroon waaw matal nga ko ni ki tabaski nekkee feet ngir mi la waroon ci ponk aj yëpp matal nga ko ci bés boobu feet bu ne am nañ seen feet feet yi lislaam nag mooy fa jaamu yàlla matee rek yàlla ne dem leen jëm ci julli juma te bay leen jaay ak jënd moo tax ba bu fa alxasee jot ba ba ñuy sëmmal juma jaay gi fukki fukki juróom waaw ci baraxlu nag nga xam ne guddi yi gën yi itam mooy guddi laylatul qadr ci weeru koor guddi yaari xeet yi ak guddi tamxarit waaw guddi gi yonent bi juddoon sallallahu alayhi wa sallam guddi gi rajana ak guddi laylatul min saban ak guddi xaj ma ci def bu nekk xaj ma nag moo xarafa yonent wax na ci ci ne ne bés boo xam ne bés bu gën ci mbooleem bés yi jant bi fenk moo di bésab arafa mais bés bu gën ci mbooleem bés yi jant bi fenk moo di bésab ajjuma arafa ci at mi ajjuma nag moom ci bés baay bu nekk bés baay bu nekk bésab ajjuma ci gën at mu nekk nag bésab arafa ci gën suñ daje ñoom ñaar nag mu ngëneel ci gën ngëneel wa jaara si jaar su ma waxoon kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yonent def doon xutba jumaa am njëgg ak ci firina sax naa daw Medina moo doon bu njëkk bi di dugg ba dafay ànd ak i tabalaak ay solkoleeg waa ay poof ay yóob ñëpp xam nañ njëgg ma ñëw na. di seetu kënt yi waaw di moom moomoon njëgg ma ba nga xam ne ñëw na di dugg rek ñu mën déggee coow la fekk yonent yi julli jumaa ba sëlmal di xutba booba xutba jumaa moo daa mujj yonent dafa doon julli ñaar rakk dafa xutba ñu ngi def ci yaari xeet yi ñun ñëpp ne ci feeru tasaaroo dem ci njëgg ma. ba yonent def fa rek ak fukk ak ñaar fukk ak ñaar yi ñan la fukk yi yonent dugale aljana Abubakar Umar Usmaan ibn Ubaydillah Zubayr ibn Awaam Saadu Sayeed Abu Bakar ibn Jara Abdurahmaan ibn Awf ñaar ñi mooy Abdullah ibn Mas'ud ak Bilaal fukk ak ñaar ñi rek ñoo demut yonent ne génn naa ci daanu sama bakkan bi su taxutu ne fukk ak ñaar ñi ne jaanama dana wal waaw fekk fi nit ñi fekk nag saaba yi ñoom ñu jub lañ dañuy jëm rek waaye dañ nam ñu mukk safaan booba li yonent daa mu jokkut bëggi ñu defe ne ndax julli goo sotti na pour bëggi pour ñaan nga fekke pour ñaan nga bañ a fekke moo tax ñu def ko moo tax yonent far jiital pour bëggi dañ xam ne ci julli bi la bokk kenn ñu nga dem mu ne way saaraaw dem gis nañu ci jaare tam yaxam tu aw la xewam bi jokkoo in fa boo ñu ko saaraaw la yaa jëm ci moom wa tax ko tam bay la xaay mën yaa ji taxaw kul waxal maa ngi laay la nekk fa yàlla ci yoon xayru moo gën ñu la wécc ko wala si jaaree ci waxantu wala wala xayru raa fekk naa jiite ñu weesu la ñu rek. naa ko def nag ñoom ñëpp ñu tuub ba wécc yonent sallallahu alayhi wa sallam mos na xutba ci julli juma jëkki te laay ji war na la ko watara ko ko qaa'iman xutba juma jëkki te ñu naan Muawiya moo ko jëkk a def